loo loo loo contesté ci combat bi. non mënu ma see wax dara lu ma ci wax dara c'est parce que loolu la loolu la yàlla ci yoon wi waaw. non ñëw naa tey jàkkaarloog yow Fane <laughs> du ñàkk suba damay dem damay dem jàkkaarloog visa. nu ah, ah. mu demee. Mm-hmm. moom lañ jox victoire léegi yow. bu dee moom lañ jox victoire victoire waaye dañoo dem ba ci table ñoom ñu gis lépp ñu gis lan ñu ne damaa def carte bi te fekk ma defuma carte bi sama loxo mi ngi ci ngembam. ok sa benn loxo mi ngi ci ngembam sama benn loxo bi mi ngi ma ngemb ma téye ci ngembam te ma rëbb 3 bi ko victoire jox dañoo nekkoon ci yoon te yoonu ndaw boo ci nekkee am na yenn yoo xamante nii pour man jarul mais xam nga non non lu ma ma ne woon ah. dama bëggoon tons bi toog fi ñu ah. sama gaan bi mu lay wax séeni ah. bëggoon mu toog sa wet daf na ko ba mere ma ci

waaye suñu yàlla suñu borom mooy dogal lu ne mooy dogal nit gis la man man xam naa yaayam xam naa sa man man dem naa fa waaw man man daanaka yaayam maa boole ci njabootam bokk uh-huh. ba ñu njëkkee def signature arena mm-hmm. ñu bokk pour la ma yaayam woo téléphone mm-hmm. ne ma ma la wax sama doom mooy kan mm-hmm. man rek du ma la sama doom mooy kan waaye man damaa seetaan signature bi rek nga nekk nit ku am taalib nga neex ma trop uh-huh. ay rakam yi jigéen di ma woo di ma nemmeeku di ma def lu ne comprendre moo tax na ba problème bi amee mhm. mën a garaawul comme demee noonu mën a garaaw problème dem ci loolu mën a leen comme maanaam du ma xëccoo moom lenn ki mu lay wax nii sama nijaay bi lay wax nii seeni mhm. loolu la ma mere woon loolu la ma mere woon expliqué xam nga yàlla dafa dogal ma ànd ak nit ñoo may ànd ak nit ñoo xamante ni mooy li la wax mhm. nit ñoo xamante ni li may def sax dañ ma ko gën a bëgg moo tax ma ne la nag ci lépp lu may def ñu gën ma koo bëgg rek mhm. man li ñu soxla dama la nga ciy dem ba la fa demee sa combat ak visa nga jóge ci am <coughs> lu ma métti jàngoonteeg lu ma métti mhm. loo xamante bu ko jàngoonteeg woon doo ñëw làmb ji jour boobu comme lan Nicolas dañoo daje ñaari yoon ma daal fan ci mhm. di éliminé demi-finale moom la am premier tour te jël ba mu ko daan arène moo gën a garaaw jël boobu fukki junni yoon juróom ñu jóge foofu moo amoon blessure sama loxo. blessé blessé du blessure nag loxo bi jéeg saa noonu rek néew yi. waaw waaw ñu fi lamb yi fi lamb la waaw. mën nañu koy nëgu di ko nëgu gars yi. ko gars yi. waxuma ko kenn di ko demee entraînement mooy bu ñu nee combat bi des na deux jours ba deuxième jour bi damaa noppaliku. ñu mhm. ma noppaliku nag la commencé di def moom.

ne ma li lay métti bul ko def problème demal nga bëri mu ne la demal bëri ji wallaay la si finalement Habib Sy la sa diggante ak Nicolas Habib Sy sama Niko. diggante ak sama Nicolas ma dox ci kawam jàpp ko bu mhm. mu ko jàppee mun a day mbotti ñu rëb bu may rëb ci la ma indi épercule teppi fii ma dem arma foofu ba mu teppee ko naa yëgatul dara luy métti sama yaram bi ya, arkaat bi teppee ko wallaay foofu nga tàggatoo métti métti lépp luy nekkoon sama yaram yëgatuma ko bi sa deret tuuroo rek wallaay laa ma dem ardo ardo naan dañuy baare ndax li ma ko dimbalé ma rek ngir yalla mañ nga bayima ma suma démé lamb ji du yalla dama kay daan ma daan ko jël bu reuy nga ñew japp ko daan nga signé sa 5e victoire dans la l'arène deux victoires ci poule bi ben défaite nga jogé fa nak qualifié dem demi finale direct direct demi finale kan nga am demi finale ma ngi amone narzinho ki euh mbartin mbartin hmm. mbartin non baaratin baaratin baaratin baaratin baaratin ak mbartin bokkul mbartin numéro un hmm. moom mooy papay baaratin numéro deux léegi dafa am mbartin numéro deux hmm. kooku moom la gars yi xam ci arène bi mais yow baaratin nga daje baaratin laa daje en demi finale waaw demi finale nu mu ma ñàkkoon par décision arbitre nga ñàkk par décision arbitre waaw non c'était en quart de finale quart de parce que baaratin dafa dem demi finale ñàkk dem demi finale kii daan ko kii daan ko. du woon na Yékini non non non Yékini dara États-Unis. moo Yékini Yékini moo Yékini moo Yékini moo ko wàcc en en demi finale. moo Yékini dem finale dajeeg euh, visa daan noonu la fa ah, finalement yow quart finale bi foofu nga ñaan par par décision. n'est-ce pas ah. bi taxaw ci. Euh, euh, deux défaites quatre victoires. mais benn yoon de mës a rëbb sax ñu ne. def na trois à wala autre chose. mais a une visa victoire déposé au recours. recours. finalement Arena Tour bi jeex combien de temps En octobre 2014. 2015 2016. 2017. non 2016 c'est le 2016 2016. bi nga jógee à Arena Tour bi kan après.

loolu moom benn benn defet la am. waaw la amoon avant yow. avant yow ne ma ñu mu bëreel yëpp dinañu kaawa. xeexkat la <laughs> bërekat la. waaw ne ma day xeex day bëri. Mm-hmm. ma ne leen waaw xam nga xeexkat ak bërekat bu ñu dajee. Mm-hmm. pour man bëre baa gën a am avantage ñu xeex. Ah waaw ma ne leen nag du ñu yegg foofu sax fi ngeen di xalaat nii yëpp duñu fa yegg. su mm-hmm. ma toogee sama gars yi comme ni ñu toog nii sama néeg ñuy expliqué. combat bi te wala ñuy expliqué laa juuf. fi ma tëddee dina la damay ne bëreel sax yeewu ne leen. kooku maa moom ñu yàgg yow gëmoon nga loolu dama ko gëmoon gëmoon nga ne doo yàgg ak El Hadj ko gëmoon te jour bi comme ça ko gis mhm. maanaam mosuma ko gis confiance bi laa mhm. ma tëddee nii sama gars ñu nekk sama néeg fees dell di mhm. di waxtaan bu ma dégg ba dégg ñu naan El Hadj El Hadj nga tuddoon rek jóg mais naa la ne du ñu yàgg dama koy daan ci lu gaaw te yéen ñiy seetaan yi sax ku boo xefee sax wala ngay waxtaan sax doo gis jël

nga ne sa waaye nii laa koy daane. jour si noonu nga ko daane. est que mën nga mën nga ma dellusiwaat film bi film combat bi nu mu demee. film combat dafa suulee mu wuti ma. waaw dafa suulee mu wuti ma. Mhm. boobu damaa daje foofu benn paa bu baax Pape Boy Niang. Mhm. maa ngi koy nuyoo passage moom. waaw dëgg la bu ñàkk ñaan. père dëgg la waaw mënoon na ne. Mhm. doom mooy boobu. yoonam newul ci man waaye daf ma woo ne ma booy bul ko jam da ngay arrière mu ñëw loo soxla ci moom mun nga ko am noonu la demee. finalement mu ut la. mu ut ma Maria. waaw nga nga mel ni kuy reculer. mu mel ni kuy reculer moom mépp. waaw mu mu ut si ma. waaw ma wàcc. waaw damay wàcc fekk muy indi uppercut ma jàpp. jàpp rek. bàyyi ko ba yéeg sama kanam la ma génn bàyyi ko. nii mais da nga tourné en rotation ak moom. tourné en rotation rek xajal ko loxo baa ngi fii. Mm-hmm. loxo bi fi ma téye nag bi mu war a mun a génn rek ma tourné moom. xam dañoo nekk ci keppaar bi mag ñoo xamante ne nii. mais jël gi rëy na. Mm-hmm. jël gi rëy na. waaw non non non sans blague jël bi bi dafa rëy. ah loolu ñëpp wax de waaye ni ku. waaw dafa tiit quoi dafa tiit voilà. parce que ñun avant ñuy song sax mi may wax di saaga nii di wax lu ne. Mm-hmm. naan xamoo maag bataille psychologique la mm-hmm. naan xamoo boo xamoon nag. Mm-hmm. doo dugg jël sama avance ak ma bi moo dox sama diggante yow lamb te noonu la génne waaw ma ne ko bu génnee rek lamb bi mm. nga bëree daan kii di a Hadj Diouf en 2018. lors du combat Sa Thiès Boy Niang au stade Léopold euh, au stade euh, Léopold Sédar Senghor mm. nga jóge ci toog deux ans bëri ko sama waa ji da ngaa daw làmb ji wala da ngaa ñu mooy li ñuy waxtu li ñuy njëkkee woon rek ci waxtaan bi mooy man pour moi problème ménagère la quoi problème ménagère waaw problème ménagère la c'est parce que dama yaa xamul ménagère yi li ñu bëggee ko mhm. c'est parce que bu fekkee ne victoire maa ngi am ba mu doy mhm. fekkee bëri it maa ngi koy def dama yaakaar ne nag kuy daanu lañ bëgg di ko wutal combat wala daal kuy daan lañu war di wutal combat muy bëri di am waaw ñun ñuy daan te di gën a arrière ñiy daanu di gën a avancé jaaduwul bokk na ci tax ma déplacé wu tey ñu ngi jàkkaarloo waaw kañ bàyyi noonu la fa demee parce que normalement la ko war a bëri waaw noonu la ko mais euh, euh, hmm. sa kanam kan dem rek jël avance wu faa numéro 2 ko utiliser sax bëreet na ku ma ko def laa la nii ma wàññi sama avance jox dooleel la sa avance. yow kan nga soxla instant bi. Hmm? kan nga soxla man ñi ma soxla bëri nañ de. jox ma tuddal boo ñemee rek tuddal tuddal seen tur. non c'est nekk fi di lim. kon da ngaa ragal booy <laughs> a compte nu mu demee kon da ngaa ragal booy yi xool muy ree ma léegi tuddal ma tur ne ma diw na jël sama avance. man du ma ragal kenn. léegi tuddal ma tur nag jox ma tur. man luy ragal wala luy tiit newul si sama yaram. kan moo sa adversaire sama adversaire yi sa potentiel adversaire instant bi koo xam ne jàpp moom. Ah. ku ko tëggoon am làmb ju yéeme. Ah. jox ma turam tur. benn mbër laa cité woon. mu nekk mbër boo xamante ne nii. Hmm. dama ko bëggoon trop. Hmm. ba tellement nga sama gars yi bu paree saa sax xel mi dama koy dama koy fàtte quoi. Hmm. dafa gàtt nii xaw a xees. ba léegi day jaay sax garabu ndoxum situ lañu ñu waxoon. kan la combat bi naqaree te mu naqaree bëreel rek. kan la tur bi waaw dafa tur bi. ma ne kii. waaw xaw ma nag ban écurie la ne amul moo tax ma ne. Eh, yow Bébé Diène nga fi judd wala kan. non non non du Bébé Diène waaw Bébé Diène sax baax na. Bébé Diène baax na Bébé Diène sax baax na. Bébé Diène baax na mooy la si naa ma xam Bébé Diène bu ñëwoon sax baax na. Bébé Diène la jël sa avance. bu jëloon sama avance sax baax na wallaahi lazim. yow ñeme nga jël avance Bébé Diène yow yow Fabi numéro 2 yow ku la waxoon allo. Mm. avance Bébé Diène mi ngi nii ñeme nga koo jël. barke Seydina Muhammad. booy mbiri naa bi équipe Soumbédioune. barke Seydina Muhammad. gis nga li muy bëri. wallaahi moo tax mu doy ma. gis nga li mujjee bëree grand combat à l'arène nationale digganteem ak Fourière bu grand F Ngor. moo tax mu doy ma. ah na ñëw. na ñëw waaw. waxal ak moom. Fourière boobu sax yow. bépp non waxal ak Bébé Diène avant Bébé Diène mi wax fi tudd déjà waxal ak moom. Bébé Diène laa wax Bébé Diène. moom bu ñëwee sax baax na. non waxal ak moom mi ngi lay déglu instant bi waxal. dama ne dama ne la déggoo mu la dama ne la Bébé Diène ci boppam laa soxla mu ñëw ma defaral ko. mu jël avance bi mu jël avance bi ma defaral ko ci lu gaaw nag du ñu yàgg. Faby loo mën ci Bébé Diène. li ma mën ci moom bëri na. wax ma ko xam mbër dangay ngay bëre moom ñeme ko ah. mun koo daan ah. mbër boo ko ñemewul doo ko daan ça c'est amul benn mbër amul benn mbër bu may wax naa ne jox ma ko hmm. may ragal ci moom nu ma ko war a def kon daal Bébé Diène nag takk fitam jël avance su femme yi numéro 2 bu kii sax waaw lu mu def ci làmb lu ma deful ci làmb bu dëgg yàlla gën maa baax palmarès wax dëgg yàlla ñi ñuy tëgal fii grand combat amul kenn ku ma ci gën a baax palmarès bokk na ci tax ma déplacé wu tey ne la sa waa ji foog nga wax kon kay man nag dama jàpp ne yow mi sa jëm boobu rek war ngaa mën a xam samay adversaire ne ma diw ak maa xam say adversaire non ma la laaj di tontu damay ñëw di laaj yow ngay tontu mais mën naa toog di laaj di maa toog def émission ko ba Thiès laay gote maa la wax lii léegi mbooloo sama ménagère Zal mu ngi may dégg. laay boo de la lay def kooku day jógee Thiès ñëw Dakar bëree daan ñibbi. non jógee Thiès ñëw Dakar bëree daan ñibbi. waaw noonu la def waaw par exemple ñu koy fekk ci Thiès mu daan leen. waaw ah yow yow yow. damaa bëgg mu toog Thiès yow revanche par procuration de parce que daa sa doom day.